vive la liberté la presse merci beaucoup de la CAP pour discuter ak ñoom par rapport ak situation si vous les agressez et si vous les mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi fii ci euh, buntu télévision 7 TV fi nga xamante ne euh, foofu la askanu bëri rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci euh, presse bi taskatu xabaar yi tey la ñu joxe woon tey ci 17h rendez-vous ngir mën a rassembler wu fii ci buntu 7 TV li ko waral moo di agression ñaaw teef bi nga xamante ne ay Samba def nañu ko ci suñu concert mi nga xamante ne moom mooy Maimouna Ndour Faye loolee nag euh, gannaaw bokk tasxatu xabaar yi yéggee ñu daal di euh, joxante euh, rendez-vous tey ji ngir rek mun a ñaawlu li nga xamante ne loolu la ñu def Maimouna Ndour Faye mais yemuñu ci ñooñu kese ndax autorité yu bëri ñoom it tamit ñëw nañu feddali seen coloré waaye it seen i solidarité ci tasxatu xabaar bi ni Maimouna Ndour fay mi nga xamante ne moom la Samba Boy daal di agressé ni ki démb lan la ñu mën a jàpp ci kaddu yi nga xamante ne yooyu la ñu taatal ci autorité yooye ñu dem teewlu ana lan la ñuy wax ci mbir mi ni la liberté de la presse est à terre. toog leen ngeen jëm maa leen mon amba. vive la liberté de la presse. merci beaucoup. merci. ces images là dañuy def le tour du Sénégal. et nous sommes tous malheureux de voir cela. Oui, cette agression n'a pas de nom, elle n'a pas de nom, elle a dépassé euh, tous les niveaux d'indignation qu'on peut avoir pour qualifier ça. comme je l'ai dit moi-même dans mon poste, c'est une agression qui concerne une femme au mois qui est consacré aux femmes et qui était en train de gagner sa vie parce qu'en réalité le journaliste comme l'enseignant ou l'inspecteur des impôts exerce un métier pour gagner leur vie. lu doy waar la lu lu ragal lu la sax lu lu loo xamante ne ne jàpp yàppoon nañu ne Sénégal am na loo xam ne ne weesu na ko ndax euh, wax sa point de vue def sa liggéey en tant que journaliste. yaakaaruñu woon ne mun na yegg ba fii donc dafa doon un préférent dangereux. lâcheté mënul weesu lii te kii fi ñëw kii attaqué Maimouna du Faye dara yëkkati ko lu dul jël bakkanam loolu il faut mu leer et il faut maa ngi ñaan yàlla suñu borom kattanal suñu enquêteur pour que ñi kii def lii ak ñi ko yebal ñu teg leen loxo rapidement. que ce soit Maimouna Ndour Faye ça fait très mal d'abord parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement et que j'ai vu gravir les échelons dans son propre média à 2STV d'abord quand je l'ai connu et après qui s'est battu pour créer cet organe qui a pu gravir aussi les échelons mais qui malgré tout était passionné euh, de son métier et qui malgré son statut de chef d'entreprise continuait à se battre. Moi je l'ai dit quand tout le monde quand les gens du pouvoir disent que vous êtes pro-opposant et que les gens de l'opposition vous taxent de pro-pouvoir, c'est que vous êtes impartial en réalité et Maimouna était quelqu'un d'impartial qui faisait bien son travail. lu mel ni nag su amee si réew képp ku si bokk si réew mi war nga si taxaw war nga si wane fullaak fayda buy tax ñi nga xam ne dañuy jóg di agressé ñoo xamante ne dañuy jóg pour noppiloo ñooñu euh, tiitaange bi mu féete seen seen boor waaye mu bañ féete si ñoo xamante dañ bëgg la la liberté dañ jàpp ne il faut la liberté d'expression moo tax tey encore plus que jamais dañuy ne acte boo xam ne acte bu tiis la bu ignoble la bu lâche la ñu def ko bésu premier mars di weeru weeru jigéen ñi def ko si koo xam ne ne journaliste la muy acte boo xam ne contre la presse la contre la liberté de presse ñu def ko si réew moo xam ne réewu démocratie la donc loolu dañ koy ñaaw ñaawlu. cas bi métti na mais dama bëgg ni ko presse bi taxawee ñoom ñëpp ñu doon say benn parce que lii du gulet ah, affaire baa ngi doon ñëw. taal nañ fi seeni organe dégg ngeen fi si ay manifestations yu agressé leen yàq seen i matériel et cetera donc luy tàmbale la y' a pas eu la réaction qu'il faut mu ngi commencé nag am dayo boo xam ne danañu dépassé. je me dis aussi qu'il est temps que les Sénégalais se ressaisissent les Sénégalais ne s'indignent pas parce qu'on prend une pierre on la jette sur un policier les Sénégalais ne s'indignent pas parce qu'on a agressé une femme mais qu'est-ce qui va nous émouvoir C'est quoi Il faut qu'on s'entretue, qu'on fasse comme dans d'autres pays, qu'on aille vers des situations génocidaires, c'est ce qu'on veut. Mais il est temps qu'on arrête tout ça, que la violence verbale cesse, que la violence physique soit punie, pour qu'enfin on puisse être réconcilié et qu'on aille à autre chose. Donc moi, ma responsabilité était de venir, de, de pouvoir compatir avec tout le monde de la presse, parce que ça ne concerne pas que la CTV, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les journalistes, ça concerne tous les Sénégalais. Mon devoir est d'être là à leur côté. autorité li ñuy xaar si ñoom tey moo ñu diligenté mbir mi nu mu gën a gaawee ñu fexe ba mbir mi dootu fi amati parce que laaj na ñi koy def bés bu ñu toogee ñu xam ne lii mën nañ ko def benn yoon mu jàll waaye duñ ko xalaat defati te loolu dañ siy xaar si autorité yi. les hommes politiques de tout bord euh, la société civile et cetera ñëpp pour que lii doon un déclic boo xam ne lii danañ ko dakkal définitivement réew mi terreur mënu ko orienté mënu ko yore ñun noonu la ñu bindoo Sénégal. li ñu xam mooy fu la neex faral loolu neex xalaatal dans le respect et nos valeurs de société bokkal diine bu la neex tarixa bu la neex ñun loolu la ñu xam lu dëgg fonkante suñu biir nga am sa gis-gis ma am sama gis ñu am respect te ndaw si deful leneen lu dul lool ñëw tàllal la son organe nga wax li nga xalaat mu opposé la yoo xam ne da koy saytu ci sujet bi ngeen di waxtaane loolu lépp pour lan opposé wu la ko parce que loolu mooy gis-gisam journaliste la mais parce que daa bëgg nga xóotal da lay jox ay faits yoo xam ne mën na contredire li nga wax pour nga gën a argumenter loolu nag ku ko comprendrewul ça veut xamoo lan mooy rôle organe de presse yi fi nekk. que déjà bu ma gisee nit muy jigéen muy góor ñu agressé ko dafa metti donc boobu mooy premier raison bi ba pare ki ñu agressé nekk jigéen nekk femme de média mu mel ni man fi mu nekk ni foog naa ci Sénégal ñun ñaar rek ñoo fi jigéen yi diriger groupe de communication donc loolu tax na ma ñëw en tant que sama consoeur la beneen troisième raison bi jigéen man dama yàgg di lutter pour droit jigéen yi donc su ma gisee ne léegi euh, euh, violence yi ñuy def ci jigéen yi dafa bëri donc dafa bëri dafa fës donc dama ñëw fii pour wax ne stop nañu arrêté loolu ñun mënatuñ ko supporter ñun yi yaay yi ñun ñi sœur yi ñun ñi doom yi ñun ñi rakk yi mënatuñu supporter léegi li ñuy def ci violence contre les femmes. Ma présence ici, c'est de condamner fermement cette agression et de demander que plus jamais euh, une agression pareille Euh, ne se produisent. ki nga xamante ne jigéen la comme man donc euh, ndogal dal ko ñu dégg ko ñun ñëpp ñaawlu ko moo waraloon tey suñu taxawaay. dañ koy nakarlu d'abord en tant que nit nakor nakarlu ko. en tant que jigéen waaye naqarlu ko en tant que journaliste parce que amul benn nit boo xamante ne mérite na genre xeetu violence yi. fi mu nekk nii dëkk bi de manière général ñu ngi constater que sécurité bi dafa dafa wàññeeku. dafa wàññeeku nit ñi agression yi commencé bëri na te surtout dañ ko diriger ci ci jigéen yi loolu moom war nañ ko wax dëgg la Euh, agression ci jigéen ñi dafa yàgg am wante léegi la gën a fës surtout léegi nga xam ne nit ñi ñu ngi nekk ci réseau sociaux yi lépp ñu koy mun a fësal mais yàgg na am temps yi tamit boo xam ne contexte tamit contexte dëkk bi contexte politique bi contexte électoral yooyu yëpp da koy fa day tax mu gën a yokk ñoo ngi koy méttitlu bu baax a baax ndax ku ne mars ñëpp xam nañ na weer la goo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi voilà euh, doon na loo xamante ne ñaawlu nañ ko bu dara dul dara jigéen boo xamante ne yaa ngi bay sawaar ci réew mi nga taxawal groupe jiite ko di créer ay emploi tey jii lii dal la ñu xam ne nekkul dara loo xamante ne moo ko waral lu dul jàpp nañ ne amanda ci say conviction la say gëm-gëmu bopp moo waral tey lii xew donc ñu ngi koy ñaaw ñaawlu bu baax a baax a baax rawatina ci marché bi nga xamante ne moom lañ nekk weer gom te ne dañ ko jagleel jigéen ñi. du ma sax jéem a justifier acte bi parce que boo ko justifier day mel ni danga koy jox sens c'est-à-dire que acte yu ni mel moo warut a am dañ koo warut a gis ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo war a assurer sécurité moo xam journaliste la moo xam citoyen lambda la nanu def seen liggéey jàppale euh, dirigeant yi dafay interpeller ñi nga xamante ne bii ñoo yor waanum wàllum kaaraangew bépp sénégalais ndax encore une fois du ma euh, tàyyi ci di ko wax benn nit warul subir li ni mel. maa ngi ñaan nag jigéen yëpp nañu mànkoo nekk benn xeex lii parce que ñun mënatuñu supporter loolu ñun ñi yaay yi ñun ñi rakk yi ñun ñi mag yi ñun ñi euh, doom yi nee nañu mënatuñu supporter loolu te dañu bëgg a mànkoo ñun ñëpp ñu xeex. di ñaan yoon def liggéeyam tey képp ku nekk si presse yaakaar naa sol nga sa dàll wala yónni nga say ndaw pour ñu ñëw taxawaay xol la nee nañ guddi lu mu lëndëm lëndëm bés na mën a set donc ñu ngi ñaan yàlla euh, leeral mbir mi ci nu mu gën a gaawee bu ko defee ñu def ñaawtee fii nii ñu mën a taxaw ci kanamu yoon yoon def liggéeyam àtte leen ci nu mu ci waree parce que ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla tamit mu delloo ko ci sagoom delloo ko ci sagoom ba mu mën a euh, delluwaat ci liggéeyam. naqarlu lii daal may euh, sœur a Ndour Faye muy agression bi ñu ko def. xamuma ci yan fànn lañ ko ko defee mais amul fànn amul amul jëf ju gën ñaaw jëf ji mooy fekk jigéen jamate ko ba nàccal deretam jigéen lenn kese moo war a tax deretam nàcc mooy xëy na buy jur doom lu weesu loolu kenn warul gis deretu jigéen donc tey mois de mars ñu gis jigéen bu ñu violente de cette façon ñu ngi koy condamné te di ñaan mu bañati am ci réew mi parce que du lu rafet. les journalistes ils ont une grosse responsabilité là-dedans. crime soit détecté, soit puni. C'est tout simplement abject, euh, abominable et très laid euh, ce que nous avons vécu, euh, tous les Sénégalais. Euh, nous le rejetons, nous le condamnons euh, avec violence, avec beaucoup de fermeté. Euh, mais c'est le lieu aussi d'interpeller les responsables, les leaders, que ce soit donc les leaders politiques, mais les leaders aussi à la tête de l'État. Et le premier, donc c'est le président de la République, que j'ai entendu euh, dire il n'y a pas longtemps, parlant de la presse étrangère, en fait avoir des opinions, avoir un discours sur cette presse-là, qui pouvait peut-être orienter et motiver euh, des militants à avoir une certaine attitude. Maymouna moo ñu njëkk a yóbbu ASC Sida Avion ci Diouf Sarr boobu kii moo nekkoon président ma nekk président supporter yi ba mu nekk suñu président d'honneur maanaam mu nekkoon boobu sax nekkagul 7TV mu nekk personne ressource si quartier bi lu xew rek ñu ne nañ dem seeti Maymuna mu ñuy boobu amagul xëy na lu lu mën a tax mu ñuy jox mais di doon wax ne bàyyi ma yóbbu leen ci kilifa yi ma xam ñu jàppale leen quartier bi kon nit kuy def loolu aspect social man tey ñu ñëpp ñu maaga ba nekk ay responsable ci commune ma nekk responsable dans la commune des fois lu xaw ci quartier bi su nit ñëwee si man dañ ma naan ci Maymuna lañ jóge wala dem nañ ci Maymuna wala bu ñu jógee ci may ci Maymuna lañ dem kon nit ko mel noonu suy def loolu si quartier fu mu dëkk ak ci lii bu ko dalee ñun ñëpp dañuy am ci ak moom lu tax may wax loolu pour wax ne bañ nit ñi xoolee may mën a journaliste kese parce que am na portée sociologique bu nekk ci moom boo xamante ne ñun bu mu ñegee niveau bi man mi nekk la président de l'ASC acteur ba ma ko dugal ci groupe bi amul jeunes yi ku ma woowul ñëpp naqarloo ko doon yëpp a fees pour wax ne xëy na tey bu ñu xamoon ki def lii tey dina demee neneen. suñu jigéen la suñu sœur la mun naa wax suñu conseillère la suñu lépp nekk suñu dëkkandoo de plus parce que tey 7 bu ñëwee nekk Wakaam c'est pas gratuit c'est pas quelque chose de loo xam ne lu lu yàlla dogal la kon yàlla daf ñu boole ak moom non seulement 7TV mais Maïmouna aussi ñu bokk suñu dëkk cosaan mu nekk di sëyax koo xam ne suñu ñun ñoo bokk benn koñ mu def liggéey bu rafet ñun si nga xam ne man bi ma nekkee premier président de l'ASC Cité Avion mun naa wax ne c'était une personne qui nous a beaucoup soutenu président d'honneur la woon sax si ASC bi tey boobu daf ñu ne man awma lii comme ni ko président Victor waxee awma lii mais tey dinaa leen yóbbu samay nit dinaa leen yóbbu si ay kilifa moom moo ñu yóbbu si ay kilifa yoo xam ne jàppal nañu ba tey suñu ASC taxaw nekk li mu war a nekk dañu agressé li nga xamante tey mooy suñu ñeenteel bi cëslaay mooy le quatrième pouvoir mooy la presse nga xamante ne tey euh, ginnaaw pouvoir exécutif législatif ak judiciaire quatrième pouvoir bi nga xamante ne ñun moom la ñu dese ñun askan bi mooy presse ki ñuy wax Maimouna Ndour Faye nga xamante ne euh, jigéen bu Euh, brave la ñëpp xam si mën liggéeyam waaye ànd si ak professionalism waaye mu nekk si ñu jigéen bu raar buy jiite organe de presse liggéey si ñu koy woowee sax si anglais self made woman liggéey liggéey bu am solo ba ñëpp jox ko cër ku ànd ak moom ak ku àndul ak moom war koo nangul ne ku professionnel si liggéeyam la donc bu ñu xëyee dégg ne dañ ko agressé jam ko ay paaka bëggoon jël bakkanam ñun dañ si am tiis am si jàqare am si naqar. naqar la ñu àndal tey jile parce que dañoo yeew ak tiis Maïmouna Ndour fay bu ñu attaqué song ko jam ko ñetti yoon loolu nag ki ko doon def du agression agression da nga koy def ngir jël alalu nit ki kii def ko del ngir faat doomu aadama donc xamaguñ nag euh, kan la ak lu tax mu def ko moo tax ñuy demande kilifa yi ñu baral seen jéego ngir enquête bi leer ndaxte su leeree defuñ ko pour Maïmouna Ndour fay defuñ ko pour taskat xibaar yi. dañ ko def pour bépp sénégalais bi nga xam ne tey yeewu nga xalaat ni Sénégal amatul sécurité. dañoo bëgg l' ensemble des concernés les de l' état ñun ñi la sécurité les renseignements ku ci ne nga def lii euh, même bu dee am na yeneen yoo xam ne c' est urgent mais lii dama bëgg mu doon le déclic en tout cas bu doon sama sañ-sañ ñu régler ko rapidement pour wane d' abord que ñaawteef mënoo ko fi def di mucc ci réew mi ba pare nag ñu teg leen daan yi war pour que nga xam ne euh, ku doon sa soxna. ku doon sa jabar wala sa yaay ñu def ko lii mais li ngay bëgge rek mooy ci heure bi société bi fajal la ko moo tax la solidarité que je vois elle doit être sincère elle doit être globale doit être ferme pour que lii dootul euh, damay dégg souvent ñu naan euh, euh, yàlla na fi géej non pas yàlla na fi géej dafay warutul am dafa warul am nga jóg parce que xalaat nga ni yow yii bokku leen gis nga ne da ngay dem jël bakkanam loolu c'est pas ñuy ñaan nag réew mi nga xamante ni réewu jàmm la réewu la ak réewu teraanga ak bëggante bu ñu doxee ba jamono dikk mu nekk réew moo xam ne noonoo xalabante ak bay xeex nag bay jamante loolu lu ñaaw la ñuy ñaan nag ñi nga xamante ni ñoo yor responsabilité dundi nit ñi suñ borom dénk leen tous les pouvoirs ñu bàyyi xel ni dañuy am layoo seen diggante ak seen borom ci naka lañ yore woon réew mi lii di fi xew mu dakk te mu bañatee amati ba nga xamante ni na ak ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi yor euh, lu mel ni xibaar ñu mën leen di leen aar di leen sàmm ngir li nit ñi aajowoo ci xibaar ñu mën koo jot ci anam bi nga xam ne mooy li gën ci réew mi. donc looloo tax ñu si interpelle euh, kilifa yi parce que gis nañu liberté d' expression ou bien liberté de presse de plus en au Sénégal dañ koy menacé bu dul taq der yi de acteurs politiques yi donc finalement doo xam fan ngay làqatu ji. parce que ñun nekkatuñu en sécurité au Sénégal lool nag du dëgg du yoon te ñun ñoo war a booloo doon benn bañ a xalaat ni li dal 7TV euh, euh, ñoruma wala soxaluma li dal RFM sox euh, ñoruma wala soxaluma parce que laataa may mun a Makumba Bey taal nañ otoom sabar attaqué nañ ko keneen ak keneen ak keneen song nañ leen ab sa aan bu yàggul dala force de défense et de sécurité yi. looloo tax le président Boubacar Camara fi mu ko fekk sori loolu waaye mu ne fu mu jaar yabal ñu ñu daw. pour ñëw wan may mun a Ndour Faye wan ko journaliste yëpp wan ko sénégalais yëpp ne dafa bokk ak ñun naqar bi dafa bokk ak ñun tiis bi waaye nag di interpeller autorité yi ministre de la justice ministre de l'intérieur ministre de la communication ñu teel ñoo leeral su nu mu gën a gaawee lépp lu wundu lii képp koo xamante ne loxoom dugg na si ñu rëkk ndigam ndaxte tey jii attaque bii ñu def day mel ne quatrième pouvoir la ñu attaqué à ah, mon au nom de toute l'ASC tout le quartier Avion et autrement dit toute la commune ñu ngi koy massawu si turu kilifa diine tey bu may dugg si biir plateau bi la jaraaf yi suñu di woote naan maa Victor massalul ma waate 7TV pour wax la ñu ñëpp ñu ngi si kawam loolu daal nekk na lu ñu métti bu baax a baax